danoo jël doomi aadama teg ko mu nekk xol bi mbégte rek nga si mën a am ak kontante ndax dangay faral di dégg ñu naan li ñëpp bokk ñëpp jote ci xam nga loolu biñ koy wax euh, mala yi taxul ñuy wax mhm. euh, taw yi tamit euh, béy yi taxul ñuy wax wala jinne yi mais doomi aadama yi ndax ñoom ñoo nekk Sénégal liy metti ñoom ñoo koy dund lu naqar ñoom ñoo koy di dund donc suñ leen waxee tey jot na lu ñëpp bokk ñëpp jotee ci mu nekk projet boo xamante ne nag axe yi mii maanaam base bi fondement bi bu dee kër la fondement bi ñun ñoo koy teg teg jéego yi di ko suqali mu nekk tamit kër goo xamante ni après ñun dinañ ci mën a nekk ndax kër c'est pas parce que forcément da koy kuule rek que doo ci mën nekk ñu nekk ci di teg jéego yi mi dem di jëm kanam fii ak vingt cinq ans un quart de siècle donc mu nekk mbir boo xamante ni les générations futures ñoom mbégte lay doon ñaan yàlla ñu ñëpp nañu dund ba di ko fekke ba di ko nettali ndax euh, gis nga révolution bi fu mu dooxee donc suñ demee ba projet bi tey mu antu ba xale yi mën a dund mbégte ak naataange ci seen biir réew ndax euh, yàgg naa ko wax Sénégal manqué dara il tout pour se développer pays euh, te boo dee dëkk yu ci mel ni Chine wala Japon da doon dégg ñu naan la dans les années soixante presque ñoom ak Sénégal ñoo tolloo woon économie et actuellement nii euh, soixante ans après mhm. da ngay gis que ni ñoom euh, mënoo tudd puissance mondiale te boole woo leen ci léegi nag ñun qu'est-ce qui a retardé notre développement c'est ça le problème question de volonté la et comme actuellement nii on a des gens qui ont la volonté et qui veulent servir li ci des rek mooy accompagner leen ba quatre axes yi nga xam ne dégagé nañ ko euh, pour un développement durable de ce pays et pour les générations futures ñu accompagner leen si et tamit gis nga c'est l'expertise locale qui a été mis en avant ba pare tamit xaaruñu ci ñeneen ngir ñu ñëw fii nii dinu jaay seen expertise mais l'être humain wala le sénégalais la ñuy jël former ko def ci moom li war ba pare yeneen axe yi nga xam ne dégagé nañ ko tamit ce sont des sénégalais qui vont exécuter cela kenn ku nekk ci ñun dugal ci loxoom jàpp ci ba nga xamante ni mbir mi dafay antu te naataange képp ku nekk ci ñun lay doon li may wax rek xanaa nga nekk koo xam ni da nga nekk ci teen bi di naan te saay bu xëy di ci xëpp suuf di ñaan yàlla teen bi sakk loolu moom mooy dal ñi nga xam ni dañ koy bañ bëgguñu projet bi mais sinon même démb tu as vu des gens de l'opposition ku ci mel ni docteur Malick job de ASEPEX gis nga ko moom mu d'accord ne tey déglu na discours boo xamante ni xel mën na ko nangu te jàpp nañ lu mën a nekk la ku ci mel ni Mamadou de Decroix aussi même taxawaay boobu la am donc li may wax rek loo bañ bañ jombor da nga koy nangul gudd gudd noppam ak nangul ko mën a dawam donc li si des yàlla na si yàlla def barkeel ba ñun ñëpp ñu mën cee gis suñu bopp. très bien Maty tegal foofu sa loxo xam naa ne am na benn point bi nga xamante ne foog mu ñëwaat si. coro mhm. euh, gis nañu développement yi nga xamante ne euh, moom la Maty Sarr def euh, léegi nii alors yow tamit bi nga seetaanee la présentation du projet gis nañu le premier ministre tamit yëkkati ay kàddu. def un développement très précis le président de la république yi tamit nekk dans la continuité sa appréciation ak tamit euh, kaddu yi nga xamante ne daal bëgg nga ko yëkkati euh, sur la présentation du projet Sénégal 2050 macha allah euh, di fekk si ki nga xam ne mooy Maty Sarr Niang ci li mu développé léegi mooy mbégte ak contenté bu baax a baax a baax. Mm-hmm. parce que buñ nee ay sénégalais lañu en plus ñu nekk ñoo xam ne dañoo bëgg seen dëkk. boo mm-hmm. gisee ku la ne nañu jëm ci yoon bu baax bi da ngay nag daal di fas yéene ko nangoo topp moo tax mm-hmm. mbégte rek la am démb ci li xew fële ca SICAD en plus mm-hmm. euh, le fait que ñoom ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy membre gouvernement bi ñoom ñëpp démb daanaka ñoom ñëpp mm-hmm. euh, euh, nga xam ne mooy ministre de l'intérieur te gis nañu ne ci ay yitte la nekkoon yoo xam ne yeneen la aussi yu bokk sax gis nañ ko mu déplacé woon très bien te yitte la yoo xam ne yu bokk ci askan yu ba tey ñu gis leen ñoom ñëpp ah, daanaka le président président de la république le premier ministre euh, ministère yi ku ci nekk jëwrin yi ñëw nañ taxaw mais mm-hmm. aussi agence yeeg euh, DG yi ñoom ñëpp ñu ñëw foofu taxaw bokkut nag ak li nga xam ne moom mooy toutes euh, ci li xam ne moom mooy ci diwaanu Sénégal fépp fay xool mm-hmm. daanaka amoon nañu représentation ci li nga xam ne moom mooy boobu leen ndaje mu nekk mbir mbir mbir moo xam ne nii dama ne démb Sénégal dafa binduwaat ci taarixu ci taarixu politique. Mhm. Sénégal dafa am beneen jour boo xam ne muy le 14 octobre ni ki démb. dañ ko binduwaat mu di jour bu bu boo xam ne nii kenn dootu ko fàtte ci sunu àdduna. Mhm. jour boo xam ne nii la dañ koy bind ci mémoire yi incha allahu rabbi xam lu tax. Mhm. dafa am ay doomi aadama yoo xam ne ci mois de mars passé dañ leen a jox li nga xam ne tey moom mooy réew. réew ak ni mu laajee defaraat. ñoom tey ñu daal di taxaw ci kanamu askan wi. ndax le 2 avril gisoon nañu le président de la république taxawoon waat ci kanamu askan wi ci naka la bëgg jëmee askan wi. ci mm-hmm. euh, benn cinq ans. mais démb ma ne dafa waataat te euh, waat boobu. le deux bi moom rek moom moo waatoon mais démb daanaka membre gouvernement bi ñëpp ñoom ñoo àndandoo waat ci kanamu askan wi euh, li ñuy wax foofu yëpp tënkuwul rek. ci ni ñu koy waxee horizon deux mille cinquante horizon deux mille cinquante. li ñu war a def ñoom ay jéego la jëm atum deux 2050 fii 25 ans. le projet Thioro sénégalais yi doon laaj le projet démb ñu gis tamit vraiment ñu teg des choses claire dans la table. xam nga la projet man li koy accompagner tey yii mooy pacte bi ñu wax. waaw pacte social bi ñu wax. Mhm. mooy tey ji gis nga ñoom membre gouvernement bi ñoom ñoo dajaloo waat ci kanamu askan wi. man loolu laa ko jàppee waat la ci kanamu mhm. askan wi. daal di gën a suude waat seen diggante ak askan wi mais waat boobu. Mhm. ci lan la tënku ndax di nga gis nit ñi mu waat nii rek après sànni ci mbedd mi. mais waat bi dafa ànd ak ay seede. parce que seede yooyu. moo ñu jëmale incha allahu rabbi fii ak 6 mois ñoom ñuy développé li nga xam ne moom mooy projet boobu. fii ak 1 an fii ak 5 ans fii ak 10 ans jëm 2050. fekkee incha allahu rabbi tetal ñëpp fekkee mais euh, waat daal laa ko mën a jàppee te it nit ki buy waat am ci lu mu teg loxoom mhm. ci loo xam ne tey jii daanaka lu mu mën a tënku la pour waat man dama naan loolu nañ ko jàppandi pour l'instant ba gis leneen. engagement engagement la ci seen kanam ak askan wi. donc du lu ñuy bett parce que jamono ji ñuy wax projet projet projet bari na war na ci ñun ñu ci bari ci plateau yi. Ah. xam nga bu ñu ko waxul tamit ñu waxal ñu ko. dañ doon défendre li nga xam ne tey ji moom mooy seen projet boobu nga xam ne moom la ñu doon jaay. tey ñu daal di jël projet boobu mettre ko en œuvre. Mhm. jël li nga xam ne tey ji moom mooy euh, benn euh, euh, daanaka référentiel daal di koy jëmmal muy projet boobu. Sénégal ñu daal di gis ak nguur goo xam ne da nga toog 6 mois après daal di présenter fi nga jëmee askanu Sénégal mooy waat bi parce que bi ñuy wax li ñuy wax yëpp naan non PSE PSE man dama ne Macky bi muy indi PSE deux ans après euh, yoonu yokkute la deux ans après bi mu ñëwee ci ci ci gouvernement bi la te ba mu koy indi mm-hmm. amul benn fan lañu wane fu Macky Sall mës a taxaw rek di ñu présenter benn référentiel amul fenn fu mu ko waat dafa ñëw carrément commencé ak ñun li nga xam ne moom mooy PSE bi PSE bi mi ngi nii baax na trop projet bu baax la pour un euh, euh, euh, benn société. mais anam fan la mujj baaxul ci ci askanu Sénégal parce que c'est des gens de mauvaise foi ñoom ñoo ko doon piloté. da donc ay nit ñu ñàkk volonté ñoom ñoo ko doon piloté anamu tey PSE bi tombé na à l'eau yàqu na nii comme ça. donc ñu indi ñu beneen projet boo xam ne ni tey ji moom mooy horizon deux mille cinquante ñëw tegal ñu référentiel après six mois des élections ci kaw nag le président de la république bu mu yëkkatee ay kàddu def na la carrément. ñun dañoo ñëw ci réew mi toog càmbar li nga xam ne moom mooy yorin bi ñu yore woon réew mi à partir de là-bas nag foofu la ñuy départ jëm ci fi nga xam ne moom mooy some bi. mooy deux mille cinquante ñoom fan la ñu koy yemale. ñeneen donn nguur gi. ñoom it continuer li nga xam ne moom mooy daanaka euh, Séné yor Sénégal ci boobu ñun ñuy màgget suñu ay doom war a jariñoo ak yeneen ak yeneen. Mhm. lu mu ci mënti doon it euh, c'est le Sénégal en miniature. exactement démb. Mhm. Sénégal moo wane boppam. ci xar karamu nag njiit yi nga xam ne nii aussi ñoom ñooy refléter nekkinu sénégal yi ñoom ñoo bëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi am fu ñu leen jëlee ak fu ñu leen yóbbu. très bien donc voilà waaw nañu euh, patienté te xaar daal. ñu xaar tuuti parce que tamit même premier ministre bi sax nee na il faut que ñu xam ne que dafa am benn système bi fi nekkoon donc y a un changement de système dafa am temps d'adaptation boo xamante déjà régime bi nga xamante ne ñi ngi fi ñëw en place ñu teg des mécanismes et ce sera dans une euh, durée yow tey jii nii yan message ngay lancer ce peuple sénégalais qui est toujours dans l'attente merci beaucoup euh, Mamour ci question bi parce que nag dañ comme ay porteurs de voix surtout foofu oui am nañu bu baax a baax pour euh, jàppale tam suñu askan ci côté bi nga xam ne moom lañ ko bëggee le mu ko waxee. Mhm. askanu senegal wala senegal ci boppam. Mhm. moo soxla aw askanam. moo soxla les dignes fils du pays. Mhm. moom moo soxla ñi nga xam ne nee nañu ay patriotes lañu dëggantaan. bi ñu dee wax patriote mooy ki nga xam ne tey jii dafa bëgg réewam. réewum rek doy ko mu commencé ci réew mi yem ci réewam. muy Sénégal yi nga xam ne ñu ñoo ko bokk duñ ko xar ñaar. d'accord sénégalais yi nag war a tam am xippi xool ak jëf. ci mbir mi nga xam ne tey ji ñoom lañ leen di woo. ci naka coro parce que nag waaw gouvernement dañu ne dañu tënk benn minorité de personne teg leen ci kaw. dénk leen lu toll ni am réew. Mhm. mais ñu ne la ci minorité de personnes boobu dañuy wax ne dix huit millions de personnes yooyu ci la ñu jël ñooñu euh, teg leen ci bopp réew mi ñooñu noonu ñëpp dañuy représenté réew mi mais duñu réew mi. Mhm. ñooñu noonu tey ji ñoom ñooy incarner rupture boobu ñoom ñooy ne développement boobu mais nag ñan ñan la développement bi war a jëm ci seen loxo hmm. mooy le peuple. peuple boobu nag ñoom ñoo war a tey boole seen doole. Hmm. laat ko ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo bëgg a defar ñu àndandoo defar. d'accord mooy ku gis luy yàq puusal mu dem. Hmm. ku gis luy defar indil mu ñëw. surtout que nag ñoom ñu tenir un langage de vérité waxanteeg. doomu aadama yi li nga xam ne tey mooy seen dëgg di seen fulla ñu fi ne yee dañ leen di nax fii ak un an ñu dawandoo ak ñoom fii ak deux ñu dawandoo ak ñoom sénégalais bu ñu sonnee dinañu xaar déedéet defuñu ko dañu ñëw cëpp taxaw bind xaatim wax la ne lii lañ fi fekk tënk ko ci xaatimaat wax la tënk ko ci référentiel daan ne la fii lañ la bëgg a jëmee kon lan lañuy ñàkk pour xaar lan la ñu mën a ñàkk ci diggante pour xaar bul fàtte ne aussi ñun peuple bi ñuy waxal. peuple boobu may waxal mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo muñal Macky Sall pourtant muñ gu metti la ñu muñ. exactement ci muñal mag sàll bi lu naqari woon la. Mm-hmm. gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo toog pendant trois ans yi rek muñal Macky Sall ñooñu xaaruñu dara pour muñal Jomaay Fay benn cinq ans mm-hmm. ñooñu gëw ma ne am na ñu yàkkamti pour muñal Jomaay Fay benn euh, cinq ans waru mën a nekk surtout nag li ma ci gën a neex mm-hmm. seen vision yemale ko rek ndakaaru du Sénégal lañ la wax mhm. rawatina le monde rural tey jii ñu ñu ñu accentué wu seen wax lépp ci la nga xam ne moom mooy le monde rural déconcentration décentralisation décentralisation waaw muy lu ama am solo loo xam ne nii nee naa la askanu Sénégal ñoom ñoo ko nar a bokk ñoom ñoo war a accompagner le projet mhm. ñoom ñoo war a accompagner jëmmal li nga xam ne tey jii moom la leen gouvernement bi di woo. na la président de la république après ñu dox jëm ci li ñu bëgg a jëli. te li ñu bëgg a jëli comme ñoom ni ko président de la république waxee ci am réew moo xam ne dañu ko yàqate caxat caxatee ko ci ay euh, daanaka nguur yu fi jàll jàllandoo ndax kenn du wax nguuru mag sàll kese ci nguur yu fi succédé wu yëpp. dañ ko caxat-caxatee réew moomu nag bi ñu donn du réew moo xam ne mu dëgër la fi mu nekk nii du réew moo xam ne mu ñu mën a jafandiku la kon waa réew mi ñoom ñoo war a xam fi ñu toll ak fi ñu jëm ñu daal di àndandoo ñoom ñëpp tepp tepp ndànk-ndànk ndax mooy tax a defar man nga taxañ sama avenir sànni ma ko ci sama kanam nga yorool ma sama avenir di ma defloo ndànk moo ma gënal sa doom ji ji nekk ci sa biir kër boo ko dee yar boo bëggee xëy xam-xam nga def ko ci moom yar nga def ko ci moom lépp nga def ko ci moom su yàggee ci boppam xale baay dem sax bala waxuma laa nag da ngay yor xale bi di wax defal nii defal nii defal nii kon Sénégal foofu la toll. exactement waaw day mel ni xale rek bu ñuy jubbanti. na ko ñëpp xamee noonu. voilà voilà donc mu nekk euh, des développements concernant euh, euh, premier axe bi nga xamante ne le président de la république mi ngi ko doon wax jëmale ko sur la bonne gouvernance et l'engagement africain waaye si foofu tamit dañu gis mu wax sur les réformes institutionnelles sécurité nationale intégration africaine civisme citoyenneté et démocratie yi bi nga gisee tamit li nga xamante ne moom mooy li sous-titres ci wàllu boobu ban apprentissage moom nga siy def. waaw xam nga dañuy faral di naan lu kenn mën ñaar moo ko dàq. Mhm. Euh, te gis nga que ni euh, la sous-région elle est mhm. carrément menacée euh, te mu neex mu yi daanaka si ñun la bokk ndax gis nga boo dee xool pays bu ci mel ni Mali. da ngay dégg que ni même devise sax ñun ñoo ko bokk mi le un peuple on vit une fois. te drapeau national bi tamit li nu xaajale rek moom moo nekk l'étoile qui est juste au milieu. si suñu drapeau. donc bu nuy wax waxu intégration africaine. Mhm. Amérique gis nga ni mu mel l'Amérique du Nord euh, euh, en particulier mm-hmm. euh, les États-Unis c'est cinquante deux États Exactement. mais xool leen tey jëlee ni tey ñu ne Chine moo nekk première puissance mondiale ba nga dégg ñu ne les États-Unis mm-hmm. mooy première puissance mondiale mais une chose est sûre mm-hmm. les États-Unis